waaw boo koy noonu tey ba tey ñu nekk ak le grand promoteur Fallou Ndiaye mu tëgg tey journée bi grand ñu leen nuyu. waaw ñu leen fay baax di fay baax Guédiawaye info di leen rafetlu seen vraiment seen liggéey am na solo ñu ngi koy suivre di ko bàyyi xel bu baax a baax. kon tey nga ñëw daal tëgg journée gis ni mu mel lan nga gisee journée bi tey. waaw sant yàlla rek ndax boo xewlee amateur yi wuyu la famille bu ñëw doo def lu bëgg ba pare kontaan ndax lañuy bég di kontaan ndax heure bu ñu ñoom ñu wuyu ñu ñun defaruñu amateur yi tax te gis nañ ne heure bu ñu xewlee ñoom ñu wuyu si ñu kon dañuy kontaan bëgg ci rek. aussi ñu faral di dégg ñu promoteur dañuy daw di tëgg arène nationale loolu loolu lan nga ci tontu. waaw non boo gisee gars di ko daw mooy dafa xaw a seer xaw tàng mais nag yaakaar naa bu ñu ci waxtaan ba gars fal directeur général am nañu yaakaar ne vraiment dinaa boo daawul ak li ko promoteur yi bëggee incha keroog maa ngi dégg ku ci mel ni Mame Less que moo gën a seer tey isaar yi nga xam ne ñoo fi nekkoon muy isaar la Demba Diop muy amitié muy isaar Iba Mar Diop yi boo calculé aérosol tey moo gën a seer kon yaakaar naa war naa mën a gën a war nañoo mën a gën a xoolaat baax location bi ndax euh, isaar la boobu ne nii lamb moo tax ñu tabax ko. war nañoo xoolaat baax stade bi nga moom la ñuy luy stade. waaw war nañ cee xoolaat baax waxtaan ci mais comme falaguñ directeur général am naa yaakaar ne buñ fayee directeur général incha allahu rabbi koo ñemee seen xel gën cee daal quoi. bu loolu weesoo lan yan waaw bu loolu weesoo ñu ngi xaar le 4 avril bi le 24 avril muy diggante booy Diop ak Anti bu ñu e foofu le 9 mai le 4 mai ñu ngi jëm ci diggante Ada Fass on levu le 9 juin ñu ngi jëm ci combat bu am solo muy diggante Murta Kewel ci la ñu war a def Ramadan Pambay bu ñu jógee foofu tamit euh, fin mois de juillet ñu war a ñëwaat fii ci Arène Nationale pour suñu saison ak ki nga xam ne mooy Mamalane Boune Sarr ak Jokel. kon Ramadan Pambay finalement am na date. waaw finalement le 9 juillet incha allah lañ ko jàpp pour ñu bëri ci bu neexee yàlla. baax na ñu lay sant bu baax di la. jërëjëf merci.